nañoo génn di daal di fësal seen naqar wante nag dara bile yoon nag ñu daal di dogu ba ñëpp daal di yëg li leen naqar yi soxal nag seen yokkum salaire seen indemnité itam la ñu duppee relèvement du point indiciaire ak ñoom seen. commune politique locale boo xam ne amul doole pour fay ay salaires yu élevé du am ay agent yu bari te tamit mettre en place caisse de péréquation boobu pour fay ak pour soutenir communes yi nga xam ne amuñu doole looloo xam ne laaj na temps bu bari. du loo xam ne laaj na jàngat bu bari du loo xam ne laaj na xalaat yu bari nit ñi nañu mën seen liggéey def ko. daal jàmm ak salaam képp moo leen soxal moo taxit ñoom nag ñu daal di tàllal seen yoxo njiit yu bees yi ngir rek li ñuy jooytu ñu mën kaa saafara. ñu ñoo yor lenge dëkk bi donc liñ daan xaar ci kee ba mu dem moom la ñuy xaar ci kii kii nag muy doog a ñëw dañ koy dalal di ko féliciter waaye tamit dañuy xam ak luñ ko bëgg bëgg bëgg tamit suñu bopp moom ñu ko gënal duñ ko may dara moom ak ñu mu àndal dañu bëgga rek mbir mi ñu satisfaire ko ndax loo xam ne du jafe la bi ma waxee sànq bi léegi fi ñu toll wax dëgg yàlla yeggali ko jafewul. ci nguurum Abdoulaye wàdd ak Macky Sall seen i revendication maanaam seen i jooytu daanaka ci nopp ku tëx la daal di wat ñoom nag dogu nañu ngir gën a biral mbir yi bu nekkee saafara wuñu seen i jooytu. dina am yeneen plan d'action yu teg. dina am yeneen jéego yu ñu teg pour fësal suñu suñu suñu mbébét maanaam mun nañu dem sax ba teg ay marche mun nañu dem aussi ba jug ci wàllu cimetière yi ndax liggéey bi foofu